salaamaaleykum mbokk internet di lundi 14 octobre 2024 ñu ñëw ak yen ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram dinañu ñëw ci équipe national bu Nigéria ñoom nag démb dañoo dund lu mitti lool ci réewu Libi dinañu ci ñëw indi ci ay leeral ci biir yaatal gi laata ñuy ñëw ak yéen ci yaatalu xabaar yi ñoo ngi ñaan kuy gën ci page bi te abonné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 lasraar nag bu ñu ko waxee lépp a ngi ci moo xam wàllu noob ak wàllu ñaan sëriñ bi yàlla may na ko lool ci wàllu woowee waaye sëriñ bi dafa am ñetti jaaru yu doy waar ba ca njëkk nag mi ngi tudd mulku suleymaan mulku suleymaan nag ñi yëngu ci lasraar war nañu koo xam mu nekk jaaru bu baax lool sëriñ bi am na yeneen jaaru yu doy waar képp ku jokkoo ak moom dina la ca jox ay leeral sëriñ bi nag yàlla may na ko lool ci góor ñi nga xam ne dañoo tëlee maanaam ñi dem ba mënatuñu ak ñi nga xam ne dañoo gaaw a yëg seen bopp nee na saafara bi mu lay jox ci kaw cin ngay taxaw sangoo ko foofu ngay yëgee sa bopp kon jokkoo leen ak moom waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu seet ak wàllu ñaan ak wàllu kubbeekaay ndax ngit nit ki kat pour ngeen jëflante faaw mu seetal la ba noppi te wàllu seet ak wàllu ñaan ak kubbeekaay noobit yàlla may na ko ci lool moom sëriñ Xaadim Mbàkke général wàllu nopp boobee nee na képp koo xam ne danga am sa soxna wala sa coro boo ne ko benn mu ne la fukk boo ne ko toogal mu taxaw bu ngeen jëflante dina dëppale seeni xalaat jubóole leen boo ne ko toogal mu toog boo ne ko nañ dem du ca teg baat sëriñ xaadim mbàkke général yàlla may na ko lool ci wàllu lasraar sëriñ bi nag képp ku bëgg a jokkoo ak moom ci numéro bii nga ko mën a jotee muy 77 341 67 67 77 cent 341 67 67 képp ku jokkoo ak Serigne Khadim Mbacke général yal na sa aajo faju laata ñuy door xibaar yi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté application bi tudd Sofascore di yëngu ci wàllu tàggat yaram comme ni ma leen ko yàgg a waxee moom mii di Sofascore nag lépp luy xabaar jëm ci tàggat yaram rawatina football da cay ñëw à temps réel maanaam ci waxtu wi ko nit ñi soxlaa kon daw leen ngeen téléchargé ko ngir mën di am xibaar yu wér wóor moo xam match yi daw en direct ak programme yi ñu dëgmal ba ci xibaar yi soxal mercato bi daw leen ngeen téléchargé ko jaaree ko ci lien bi ñu def ci commentaire yi wala ci description bi su fekkee jaaree nga ko foofee téléchargé ko yaa ngi dimbali King Ouse et Ngary TV. ñu door xibaar yi dooree ko ci équipe nationale bu Nigeria comme ni ma leen ko waxee ci bopp xabaar yi. ñoom dimb dañoo dund lu mitti lool ci réewu bi ndax dimb la ñu fa wàcci waaye ba ñu wàccee nag dañoo tëj aéroport bi seize heure de temps maanaam fukki waxtu ak juróom amuñu lu ñu lekk amuñu tamit lu ñu naan ba ci connexion tamit amuñu ko ñu dund fa lu mitti lool lu ne fàng kenn du ko jiix yéen a ngi noonu di ko gis ci image yi te suba ci mardi ji maanaam ci talaata ji incha allah la ñu war a football ak libi match boobee duñu ko football ndax bind nañu waa kaaf ab demande xamal leen li ñu dund ca libi muy jëf ju ñaaw joo xam ne waa libi amal nañu ko jëmale ko ci équipe nationale bu Nigeria démb bi ñu fa wàccee dañoo dund lu mitti lool fédération bu Nigeria jël na ay ndogal bind waa kaaf xamal leen lépp ñu jugee ci équipe national bu Nigeria ak jafe-jafe yooyee ñu dund ci réewu Libi dem ca waa olympique bu Marseille ñoom nag waa Qatar Airways woo nañu leen ngir sponsoriser seeni mayo maanaam ci kanamu mayo olympique bu Marseille ñu bind ca Qatar Airways waaye kat waa olympique bu Marseille dañoo gantal bu ñu sukkandikoo ci la Provence li tax nag waa olympique bu Marseille gàntal moo di ñooñee di waa Qatar Airways dañuy liggéey ak waa Paris te ñoom nee nañu lu pari bokk ñoom bëgguñu ko suur nañu këll mbir moomee loolee bokk na ci li ñu gantal ngir ñu sponsoriser seeni mayo loolee la la province xamle ñu jugee ci waa Qatar Airways ak gantal googee olympique bu Marseille gàntal seeni bëgg-bëgg waaye club boobee duñu ko bàyyee gum bu ñu sukkandikoo ci Tuttosport waa olympique bu marseille ñoo ngi bàyyi xel bu baax doomu brésil bi tudd Arthur Melo ma nga ci yuufe di doxal ab milieu de terrain la li tax waa olympique bu marseille bëgg ko moo di seen gone gi ñu naan Valentin Carboni dafa am blessure bu mitti lool moom doomu arsantine bi Inter moo ko abaloon Olympique bu Marseille waaye jamono ji dafa am blessure bu mitti lool loolee bokk na ci li tax waa Olympique bu Marseille di bàyyi xel bu baax Arthur Melo moom nag ci Juve amu fa temps de jeu loolee bokk na ci li tax waa Olympique bu Marseille bëggu ko jëlee foofe indi ko ci seenu milieu mu jàppale leen ñu jugee ci Arthur milo ak bàyyi xel googee waa olympique bu Marseille di ko bàyyi xel jël doomu France bi tudd Paul ba moom nag ñeenti at lañu ko ajoon ngir du dugg ci terrain football waaye loole kat waa taas dañu caa jël ay ndogal wàññi ko jamono ji ay weer képp a ko dese ngir mu mën a duggaat ci ay terrain di football waaye kat club bi mu nekk jamono ji di Juve li ñu bëgg moo di téqalikoo ak moom te waxtaan bi door na mu ngi jëm kanam bu baax Juve li ñu bëgg moo di mille vingt cinq ñu téqalikoo ak moom mu nekk agent libre wuti club bu ko neex xaatim fa contrat loole la Fabrizio Romano xam ne. ñu jógee ci Paul ba ak bëgg-bëgg boobe waa Juve am ci moom jël doomu Italie bi tudd Matteo Gavia moom nag club bi ko moom di AC Milan door nañu waxtaan li ñu bëgg moo di gone gi yokk contrat ba atum deux mille vingt neuf te Fabrizio Romano nee na daanaka jubo ci lépp am na mën na am balaa yàgg ñu officialiser ko gone gi nekk ab défenseur. yokk contra ba atum deux mille vingt neuf foofee ca AC Milan muy Matteo Gavia. ñu jugee ci Matteo Gavia ak bëgg-bëgg boobee waa AC Milan am ci moom jël doomu Brésil bi tudd Gabriel Martinelli moom nag dafa am blessure ak équipe nationale bu Brésil démb la ñu ko saytu xamal ko ni ko dafa am blessure bu ndaw problème musculaire la maanaam tànk ya ñu diis lool kon mën naa am balaa yàgg mu delluwaat ca Arsenal dallu moom mii di Gabriel Martinelli ñu jugee ci Gabriel Martinelli ak xabaaram bu naqari jël doomu Angleterre bii di Jack Grealish moom nag dafa yoreel xaalis Arnoldo li ko waral moo di démb bi Angleterre di jàkkaarloo ak Finlande dafa am coup bu am Alexandre Arnold teg ko bëgg koo dóor mu ne ko boo ko dóoree mu dugg dee maa la yoreel cinq cent livres sterling cinq cent livres sterling nag bu ñu ko xaymaa ci franc CFA bi ñu miin ci réew mi wala bi ñu miin fu bari fii ci Afrique dina mat trois cent quatre vingt mille ak lu toftal ci weccit loolee la ko war a jox kon te nee na gor ca wax ja xaalis boobee mu waxoon ne dina ko jox Alexandre Arnold dina ko ko jox ndax coup franc boobee nga xam ne dugal na ko démb ñuy jógee ci Jagirillique dem ca waa Barcelone jël doomu Espagne bii di Gavi moom nag jot na ndigal ci docteur yi maanaam am na feu ngir commencé di football ay match ak waa Barcelone kon bu trêve bi jeexee match yi Barcelone di amal mën na caa bokk doxal ndax médecin yi nee nañu ko mën ngaa football ndax wér nga moom nag ci fàttali blessure am bi dafa yàgg lool. toog na onze mois maanaam fukki weer ak benn duggul ci terrain football waaye jamono ji nag mi ngi yëg tan bu baax te jamono ji jot na ndigal ci docteur yi ñu jugee ci yi ak xabaaram bu neex jël doomu Maroc bi tudd Brahim Diaz xibaar bi tamit neex na ndax doomu Maroc bi mi ngi yëg tan bu baax jamono jii dafa amoon blessure nag ñu xamal ko ni ko dina toog ñeenti weer door a dugg ci terrain football booba ak tey jii nag ci weer képp la tolloo kon ay mbiram am na miracle te mën naa am